di siyaare mboolem koo xam ne si rek da ngaa bokk ci famille bi ak noo ci mën a foog bokkee ñu ngi lay nuyu di la siyaare tey jii nag di gaawu yamook 17 août ci weer 2019 ñu teew fii ci Lappé di suñu dëkkum maam ñu fas yéene fee teew def fi ndajem famille ngir gën a xamante ngir gën a yokk tamit euh, organisation bi nga xam si ne moom lañ seq ñun waa Touré ak mboolem ku bokk ci Lappé ak noo ci mën a bokke moo xam noo mën a sant. ñu ngi nag préparé yëf ñu ngi ko tàmbali e, ginnaaw bi ndaje mi jàllee daaw rek muy année bee jàll di buñ tabaskee ba am ñeenti fan lañ ko baaxoo def ren ji nag ñu indi ko ci juróomi fan yi. kon préparation bi nag ñu ngi ko tàmbali comme ni ma ko waxee rek daaw biñ jógee fii rek ko daal di commencé waajal parce que yéene mbooleem koo xam si ne da ngaa bokk ci lappe ak ci mën a bokkee ñun nag ñooy waa association ànd defar lappe muy gone yi nga xam ne si ne dañoo sosoo ci lappe ñii di ay ay ay doom ñii di ay sët. ñii di ay jarbaat ñoo mànkoo takku ànd ngir defar lappe di ko defee ci organisation boo xam ne si ne bu jaar yoon la ci maanaam xeet yëpp nag boo gisee suñu tiset yi ñu sol nga xam ne ñu ngi ko liggéey euh, ñu ngi wut tamit lu tolloog ñetti biis yoo xam ne si ne dañ ko indi ngir mu mën a indi mbooloo mi fii ci dëkk bi ñetti biis lañ luyee yoo xam si ne dañoo mën a indi mbooloo mi ci dëkk bi biis yooyu tamit dañ leen a waaye booy xool xaaj bi association bi moo koy fay nga xam ne ki nga xam ne si ne day dugg ci biis bi moom téeméer rek moom lay paas téeméer mooy paasam moo koy andi moo koy delloo ci biir ci biir ci ci dëkk bi. ñu ko fas yéene nag def ci ay ay ay programme yu am solo muy ay xeeti waxtaan yoo xam ne si ne dañuy soññante ci suñ ci suñ biir moo xam ci wàllum diine ji moo xam ci wàllum mbokk gi lenn lu ci ne danañ ci soññee eh, kem suñ kattan ba nga xam ne si ne ñun ñëpp danañ yow ci mbir mi. fas yéene fee yendu ba ginnaaw tàkkusaan incha allah bi ñu def waxtaan wi daal di wàññi ko ñaanalante daal di dellu ci yitte loolu moo doon sababu ndaje bi min rabbil baraya xidma liman bi jaayi kafaani sadma ahmadu ala qurujin min darar wa kulli su'in wa khana'in wa gharar askuruhu sukran yajur ruzayda bisrin wala يدر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا جمع برورا رب الورى وزعزع الحرورا maa ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki laqarab yi nga xam ñoo fi teew lépp fii ci Lappé waaw bis bi nag ñu ngi ko tàmbali l'an 2005 ay gone ñoo jógoon toog ba mu yàgg ñu xalaat seen delluwaay ñii nekk Ndakaar ñii nekk Fuuta ñii nekk fu nekk ñu waxtaan ci juboo ci tàmbali ko fas yéene dundalaat suñu dëkkub maam dundalaat fa diine euh, dundal fa lislaam dundal fa ak talube daje at mu jot ñu fas yéene fee daje bu ñëwee nag liñ ko tàmbalee mooy jàng alxuraan ñaanal mag ñi fi tëdd ñaanal jullit yëpp ñaan ci jàmm ci réew mi ñaanal mbokk yi ndax lépp lépp li di bëgg ci àddina rek ñaan moo ci jiitu ca ñaan moom alxuraan moo ci gën a gaaw lépp moo waral ñu koy ubbee alxuraan at mu jot saa bu ñëwee rek ubbeeku alxuraan waaw man mii nag dañ maa féetal alxuraan ji ma ciy ànd ak dong yi ndaw yi ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu yëpp at mu jot bu ñëwee ñun fii rek la ñuy ci mbaal mi di jàng alxuraan waaw alxuraan daal dañoo. xam ne lépp loo xam ne tàmbalee nga ko wala nga ubbeeku ko wala nga tëjee ko ko rek yàlla mën na caa def barke moo waral ñu koy ubbee alxuraan ak jot وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyuta di leen ziyaara ci pàkk bu mag bi di pàkkub euh, lappe di pàkk boo xam ne pàkk bu barkeel la di pàkk boo xam ne ni ci histoire l'islam ci Sénégal pàkk la boo xam ne nii euh, histoire am histoire bu am solo la Euh, muy dëkk boo xam ne it dëkkub cosaan la ndax euh, dëkk bi fi mu toll nii di lappe euh, romb na juróom-ñaar téeméeri at jëm juróom-ñetti téeméeri at muy askan woo xam ne nii askan wu barkel la woo xam ne nii boroom cëri lislaam yi xeetu cër bu ne feeñ na fi ba tax na man euh, li may wax ab soññee lay doon bu jëm ci ñi nga xam ne nii ñoo bokk ci askan wi euh, soññee bi ci ñoom la jëm muy waa Touré ndax euh, askan wi ku ci bokk bokk na ci li war a jiitu ci say mbir mooy xam sa bopp xam sa bopp ak sàmm ak sax ci euh, sunna euh, ndax askan woo xam ne nii Chérif ay dara mi nga xam ne nii mooy maami waa dëkk bii euh, di sëtub Cheikh Abdou Khadir Jilaani mi nga xam ne mooy sëtub rasulullah alayhi salaatu wasalaam bu ñu dee wax dëkk bi di lappe moo tax moo dikkan fii maam Abdalla Buri Fall dalal ko may ko doomam Omaana mu am ci maxtar Omaana mi nga xam ne moo sanc pénc mii tey di péncum lappe ñu fi def euh, bis bu màgg bi euh, aw askan nag su fekkee ñi ngi leen di tudd di tudd rasulullahi alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa ne ab cër euh, foofu la mën a yem ndax ni ma ko waxe léegi Chérif Moustapha dara mi nga xam ne nii mooy maami waa dëkk bi di lappe ñu di ko dàkkantale ci ture wala Tóori yi euh, di sëtub Cheikh Abdou Khadir Jilaani mi nga xam ne mooy sëtub Sayyidina Mamar alayhi salaatu wasalaam kon képp koo xam ne nii yaa ngi sëtoo ci moom war ngaa xam sa bopp war ngaa xam sa bopp bu wéra a wér ndax jëmm bu fekkee ni nii lu néew néew dereti rasulullahi mi ngi ci moom donte un de sang la sax mi ngi ci moom ju tukkee ci rasulullahi donte une gouttelette de sang la sax bu fekkee wax nañ la ni la mi ngi ci yaw te tukkee ci rasulullahi war ngaa sàmm loolu war nga ko wormaal war ngaa xam sa bopp bu wér-wér mu doon askan woo xam ni itam ndax bu ñu nee lappe rek mbaakool gépp dugg na ndax li ñuy wax këllub mbaakool weesuwut waa ture waa Jaxate euh, waa Silla waa Tayba waa Njaane waa Longoor euh, ba ci waa Magana kër Magana Biraan Xumma buñ dee wax mbaakool mooy ñooñu euh, dëkk bii nag di Lappé mu doon dëkk boo xam ne nii li fi soqeekoo ci ay kàngame lislaam kenn xamut na mu toll ñii fi lañu dëkk ñii euh, soqeekoo fi nekk ci yenn dëkk ci yeneen dëkk kàngam yooyu ma des na cee tudd sëriñ Maxuja Maram ture nga xam ni nii ci xutbul aqtaab bi la bokk nga xam ne li sëriñ Tuubaa wax ci moom déggaate gu ñu wenn waliyu bu ma ko wax bokk na ci li wax ci moom nee na ni ma daan fekke ci géej gi wenn wàll yi wuy dund mosuma faa fekke noonu wenn wàll yu faatu mosuma faa fekke noonu bokk na ci li Sëriñ Tuubaa wax ci moom wax na it ni maqaamam xutbaaniya bi mu duggee loxoom génnaatu ko ba ni mu génne àddina kon loolu yaakaar naa ni ay cër yu mag a mag mag la bokk na itam ci li sëriñ bi wax ci moom wax na ni Mor Makhoudia Maram Touré dafa doonoon wali wu laa biir waaye bu laawul woon biir jamonoom kenn du ci cëru kon askan wi li ci nekk ci ay kàngam kenn xamut nu mu toll boo xoolee ci minanul baaxal xadim bi Cheikh Mahmadul Bachir def euh, di indi waxi sëriñ bi ak ay jaar-jaaram sëriñ bi bi muy wax ni bi ma nekkee ci daara ji euh, ku xërën laa ci xam-xam ak nangoo jàng awma kenn kenn kenn kenn kuñ ma mën a na gam-gam leel kudut benn waay bu bokk ci waa lappe muy sëriñ lappe balla maam Touré kooka ci pénc mii tey la dëkk sëriñ Mor Fati Touré mi ñëpp xam ci pénc mii la dëkk sëriñ Maxuja Umma Touré mi ñëpp xam nga xam ne sëriñ Saalix alayhi ridwanullahi al akbar daana faral di li ci moom muy xisab njamala gi muy jëm ji nga xam ne bi mu nelawee sëriñ Tuubaa ak njamala la fi yebal ñu dëjale ko ko ci pénc mii la woon euh, Mame Balla Baraay Touré fii la woon sëriñ ma ko jës bu ture kenn mun leen a lim kon askan la woo xam ne nii euh, képp ku ci bokk war nga gën a jéem a xamaat sa bopp xam yaay kan gën a jël sa lépp teg ko ci siraatal mustaqima اليوم زرت وصلي لو بأسمائي wax nañ ne moo ko ci maram sala mi nga xam ne ci dëkk bi la dëkkoon fekk ndiwu fekk Sëriñ Tuba waaye Sëriñ Tuba daana net ay xisa yi moom ay moom yu yéeme yéeme kon loolu day te day teg dëkk bi naka jekk ay nit diine fi dëkkoon ñoo xam ne xamuñu lu jàng alxuraan ak di ko jàngale ak yar seen njaboot ci diine ak toqantal ci day day lislaam bi ñu ci ba euh, ku tedd ki dikk woote bi ñëpp àndandoo takkatoo wuy ji ko waaye dëkk bi daal moom li ñu mën a xam ne mooy dëkk bi dëkkub cosaan la mooy groupe ànd defar lappe bi ñoom maam Balla ñoom Galas Touré ñoom Baara boo demee jum xale yi xale yu jàmbaare jàmbaare jàmbaare lañu taxaw na taxawaay bu ma sëkk sëkk sëkk lii ñu def nii di sa seen dëkku maam fas yéene ko dundal lislaam képp tax alxuraan képp tax dundal suñu séntu bi képp tax loolu xanaa ku li xaal rafet ñoot lañ ci maa def faw suñu borom fay leen ci ndax dañu ngi si ngir caaxaan amul fo amul fecc amul dara xëy suba dikk dugg ci oto yi andi suñu xéwal xëy yu ñu xéwalee wàcce fi alxuraan waxtaan si dund si mbokk loolu yaakaar naa euh, mbégte mu rëy la ci maam yi fi tëdd mbégte mu rëy rëy ci sëñ Tuubaa bi ñu toppoon mbégte mu rëy rëy la yonent bi alayhi salaam te fay suñu borom na ci ndax ñëpp xam ne ah, li yonent bi wax ci silatu rahim jokk mbokk la war a war a tiyaaba ju rëy rëy bi suñu borom digle kon nag alhamdulilah rabbil alamin ba suñu borom xeetalee namu suñuy xel bañ mën a di jokk mbokk yi di des si suñu dëkku cosaan bi di ko fi dundal loolu sant ko wér a wér di rafetlu posté bi yeeg doxin bi ñu am lu ñu tuuti rek li ñu waxoon daaw ci programme bi ñu fi amoon daaw waxoon ko ci mbirum mbaar mi te yàlla dogal mbaar mi taxaw na ci faseefu ahlu tarbiya bi yëpp ahlu euh, lapp yëpp ñu leen ci siyaare bu baax di rafetlu liggéey bi di soññante ci faseef bi bu ko defee ku nekk dañu waxoon rek ku nekk fexe cee jàpp ba nga xam ne si liñ bëgg ci lappe danañ ko ci mën a am di woo dëkk bi tamit ñëpp ñu bokk ñoo bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñii dañ fay suñu maam dañu fay dëkkoon ñu ñëw fi def ko doxam mbokk ndax léegi mbokk bi bu dul mel ne ndaje yi rek mbokk gi duñu xamante ndax ñun ñi xamante ñëpp mbokk gee ñu boolewaat loolu doon lañ jublu ci ndaje yi jubluwuñ ci leneen kon nag ñu ngi woo waa dëkk bi yëpp ñu fexe bokk ci def ko ba def benn say mën nañoo dem a dem ba defar dëkk bi ndax mbaar mii ñun ko tey jàllee incha allah ba lañ fee ñoo koy jëriñoo kon lépp lu ñu fi def daanaka waa dëkk bi ñoo koy jëriñoo li ñu gis ñu gisee ko na ñun defar dong mu ak dox mbokk ak bëgg xamante ndax taax yi dafa tax mbokk gi tas léegi nag bépp famille boo xam ne dafa woon ndajam famille seen famille dootuñu mm. xamanteeti loolu mooy sababu mm. daanaka ndaje famille yi ci ci réew mi te bari na njëriñ ndax ñun ñii mm. ñëpp ñi ngi mën ni gisante kii ci réunion yi ci ndaje yi bokk li ñuy def bokk li ñuy bëgg-bëgg yokk suñu bëggante yokk suñu xamante ba ku ci am looloo dal ñenn ñi mën a jóg ndax relation yooyu moo leen ko may bu fekkoonte ne du ndaje yi daanaka relation yi day tas kon nag loolu buñ koy woote bu kenn jàpp ne rek maanaam dañ ma ciy génne mbaa boole ji ma ci kenn ku ci boole kenn amu kenn muumu ko ba ciy boole kenn mbaa nga ciy génne kenn kon li ñu fexe mooy bu màgg bi bu ndaje mi jàllee buñ toogaatee ba noppalu dañuy continuewaat defaat ay sas pour mën a fay li des ci mbaar mi mën a tamit am programme yoo xam ne mbaar mi ëllëg dañ koy mën a karole man koo dër miir ko miir yu gàtt installé ay làmp installé fi courant ba nga xam ne si loolu yëpp duñ ko soxlaati duñ ko soxlaati ci fenn loolu daal bëggoon naa ne ko bëggoon naa koo leeral ndax positif bi am na solo kenn ku nekk wax yàlla lappe gi jàpp nañ ci. affaire teggi tamit ñu gën koo fonk te ñu fexe ba daayira bi tamit ñu def ko benn daayira ndax xale yi wax di yàlla seen génération bu ndaw bii dañu def baax na trop moom ah, dimbal na lapp ji waaye nag bu ñu fédd koo du baax maanaam dañoo war di waxtaan lépp lu ñuy def. ñu bokk ko daje waxtaan ko bu ndaje amee ñëpp ñëw kenn ku nekk joxe sa xalaat lu ñuy def ci ànd defar lappe gi ak dayre bi mu moo ñu nekk ñaari daayira nekk benn daayira nekk benn àndandoo nekk benn xaalis lu ñuy def ñu waxtaane ko nekkat ñu li ñuy def nangam bu ñu deselee léegi dugg lii dugg ci waaye nag loolu dañu ko waxtaane waaye bu ko nekk doxalee sa doxinu bopp rek la muy indi mooy ay ay yàqu-yàqu la indi te su boobaa defar ko dootu yombati. wax ji xaarim am na solo parce que tege na ci yoon itam nag te lii ci lii dundal bokk lii dundal ak bokk ci la bokk ndax gone yu bari fi toll nii fii lañ cosaanoo seen bàyyi cosaanoo ñu waaye juddoowuñ waaye nag dem nañ ba xam ne fii mooy seen dëkku baay wan di seen dëkku maam ba tax na fi mu nii ñoom ñëpp sawar nañ ci ñëw ci dëkk bi bu ko defee ñu xamante ñi nga xamante ne ñoo fi des nekk ci dëkk bi dundal bokk gi fas yéene ànd ak ñoom defar lappe ndax kat lappe moom mun noo am fu ko gën a kawe ci nun waaw ndax sun maam mi ko sancan ah lam nekkan ci la nekk ba yàlla sama borom def la la gën ca moom ñu def ko fi kon bu ñu demee ba xale yi xalaat ne nañ miir armeel yi ñu miir armeel yi dikk fi di fi wàcc alxuraan di leen defal ay ñaan loolee lu am solo la kon nag yàlla nu sama borom doole dimbali defal nu fan wu gudd ànd ak wér mucc ak mucc le gone yi sama borom kàttanal leen. ba liñ yéene ci lappe lépp sans ñu def ko ñu def ñu mën koo def ni ko bëgge te fekke lépp te tal ko waaw yàlla sans borom yokk wërsëg yi defal nu aju faju biir ak biti salli bi taslimin ala ayni nahim wa sayyidil kawnayni baasitan nahim nahim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli bi tasliimin alaa ayni naxiim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim wa aalihi wa sahbihi wa alihi bilaadan yaa xayra mubqin munimik salli wa sallim yaa muniilal birri على الذي سميت عين الغر وآلي وصحبي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلما يا إلهي على نبي الله صل إليه والآل وصحبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي amal na woon amruka misli xalqi salli alal muxtaari saadil xalqi waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi ñoo ngi leen sant ñoo siyaar di leen gërëm yéen ñëpp waaye moom ni doon waajale mooy Euh, biñ euh, daaw biñ ko defee euh, ba ci ëllëg sa rek lañ tàmbalewoon waaj dañuy bëgg jamono ju ne buñ ko defee niñ ko defe woon ren bu déwénee day gàcceel niñ ko defe woon daaw ba tax na alhamdulilah rabbil alamina nit ñi góorgóorlu lañ ñun tam ñoon lañ ko dénk dox nañ suñ kéemtalaay kattan yàlla nag mooy dogal waaye suñ sañoon daal képp ku fi ñëw da nga bëgg jigéen ñi itam ni leen ko joxe wax dëgg yàlla yéen gis nii ni ñu orné ni ñu toggee nii ni ñu defaree yëf yi euh, seen seen dépasse mat na waaye nag yàquñu ko alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla di leen gërëm di leen sant di ñaan nag képp ku fi ñëw euh, fépp ceeb wala fépp dugub boo fi lekk rek yàlla nag xéwal saayir ak baatin mu njëriñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. xanaa am pëstef rek nag di dekkal sunu cosaan waaw di fas yéene euh, ànd nag defar rek Touba Lappé rek mu jëm ca kawanam lépp lu ci maam yi yéene woon rek ñu ñaan ko yàlla eggale ñu sët yi ñu ne loolu rek lan mooy suñu yéene saa ñu xëyee suba ba ca ngoon rek ci lañ daw nu mu baaxee rek ak nu mu nu mu jagete nag tan ñaan yàlla ànd ko bokk yëpp nag nu ndax Lappé maam yee ko sanc waaye ñeneen nekk na fi ñoo xam ne duñu ma lu miti miti rek suñuy bokk lappe lañu suñuy bokk lappe yooyu fi nekk nag danoo bëgg ñëpp ànd ak ñun rek mu doon benn fas yéene xew bu jubatee rek amul kii Njaay la sant amul kii san la sant amul Seen la sant ndax ñun ñëpp rek noo ko bokk ñëpp génn rek mu jàpp ci lépp di benn ndax lu baax rek lañ bëgg lu baax rek lañ bëgg koo gis mu daw si baax lu baax la bëgg tubaar fakkaal la fi moom dara manqué wuf ku ñëw rek saxal set ndax ndax ndax su ndax yu góor yi moom sant nañ leen bu baax sunu bàyyi sant nañ leen bu baax ñun feet ak mag yi sant leen bu baax kenn ku ne def nga sa taxawaay sonn nañ ci lool taxaw nañ nag rek ndax lépp baax sant nañ leen gërëm leen ñoo ngi ñaan seen liggéey suñu borom barkeel ko mu jëm ca kanam xale yi ndaw yi war a taxaw taxaw nañ ba mat sëkk kon nag dañuy sant yàlla suñu borom sant leen rek di ñaan rek lépp jëm ca kanam kenn ku ci nekk daal cër ba ci am doxal ko ko ba mu mat. sëriñ Tuubaa sant suñ ñaari waajur ak suñ maam yu baax yi nga xam ne moom la ñuy di leen fi fekk si nag ak dëkk yi nga xam ne ñoom lañ fi dëkkal rek sant yàlla bu baax te lu ci waay def ren bu diñu nee nga sant nañ yàlla bu baax te roy suñ maam yi roy ci seen jikko yi nag ndaje mi lim am ndaje mi moom daje dong xoolante waxuñu ko dañuy boole suñuy xel ak suñuy xalaat te soppante te raxas suñu xol yéenante jàmm ndax dem buñ ko defee rek boole suñu bopp dinañ am luñ waaye bu kenn awee fee kenn di yéene sa la am nañ boole suñuy xel ak suñuy xalaat ta yéenante jàmm waañu moom sant la bu baax jàmbaar lañ lool liñ fi fekk jàmbaar lañ ñu ñëw jàmbaar lañ sant nañ yàlla nañ ko teewee ndeke ñu déwén rek ñëpp lañ nañ bëgg ñu amuñu ku ñuy xeeb bi amuñu ku ñuy ñëpp lañ bokk bëgg dinañ ko waxtaane waat waxtaan woo xam ne si ñun amul kii Jóob amul kii Njaay amul kii Seen ñëpp ci biir lañ bëgg bu nekk ndax ñun ñëpp ñoo bokk xalaat ñoo bokk ñoo bokk suñ jóge ñoo fekk ñu te ñoo bokk lépp mënuñu koo tàggale ko man bintu man maa man ñëpp laa bëgg ñu dugg ànd bokk soobee sa karimi dhan nidam i qudni al bila adan wala jawan wala gharar wala idan wala balan wala darar ya man li wajhika al karim zal kitab katabtu abli ismatan min al itab في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واحب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآليم وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وألم به النفور واجعل حروف النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وصلي وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه العين إلى سوى قارئه أنت المعن واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينصت jaadal bilaadi wal ibaadi salliya wa salliman ala nabi wa kulliya fi alihi wa ture wal tarfam ilayka waaw asalaamaaleykum man ak Soxna Ndeye Touré waaw ñun fii soo gisee ñi sol t-shirt yëpp ak ñi nga xam ne tamit soluñ kii ay t-shirt si benn as kii euh, association la nekk mooy ànd defar la association bi nag depuis ay presque trois ans man naa wax que ne mi ngi taxaw waaw instant bii moo nekk troisième kii nii mooy kii nii euh, année bi quoi léegi association bi mu commencé ba léegi Mame Balla Mame moo ko jiite chaque année rek ku si nekk dañ laa sës par exemple chaque mois 2000 francs année bi mu nekk mille waaw léegi 25000 yooyu suñ ko dajalee si la ñuy kii def mooy trois bis yi nga xam ne moom la ñuy jël. aas si lañ koy kii quoi si lañ koy def et puis tamit tigay ah, tiga bu nekk 500 francs mooy aller loolu dañ koy yombal ñi nga xam ne ñoom ñooy passagers yi ñi xam ne ñooy dem ak ñëw ñu def aller retour 500 francs lis des association bi ñoo koy kii mottali léegi nag am na tamit ay projet yu bëri yoo xam ne si association bi tamit bëgg na ko def lu mel ne lu mel ne ay matériel ay ay wàllum chaise yëpp daal ak ay li nga xam ne ak këru daluwaay yëpp incha allah association bi projet yooyu waaw ak tamit participation mooy mbaar bi nga gis ni association bi am na ay participation yu am solo yoo xam ne si def na ko si et puis am na ay projet yu bari yoo xam ne si kéegul si mais association bi bëgg na ko projet yooyu yëpp mu daal koy kii accomplir incha allah waaw vraiment association bi depuis bi mu kiiwee ba léegi am na taxawaay bu baax a baax a baax si kii bi instant yi tey su ma juumul tey organisation bu bëri tey association bi moo ko yor waaw merci bismillahi